alhamdulillahi zil ghufrani wal karami summa salamani bienvenue fi nga xam ne mooy supermarché seen teranga nekk fii ci diwaan bu Jurbel andil leen lépp lu jëm ci wàllum poissonnerie droguerie électroménager alimentaire vaisselle ngir gunge leen ci biir weeru koor gi supermarché seen teranga andi leen lépp luy charcuterie lépp luy fromagerie lépp luy café lépp luy meew tout ce qui est boisson ak bépp jumtuwaay boo xam ne da ngeen ko yittewoo ci seeni préparation ndogu ci prix yu xéwale lool faites vos commandes au 76 223 74 96 wala 76 644 16 12 ña nga nekk foofee ca Diourbel ca quartier Escale à côté de la banque CB CBAO gérant ba di René Mouka yéen waa Jurbel daw si leen gaawa supermarché seen teranga moo leen di ñaanal kóoru jàmm suñu tànk jàmm rek la mooy dañoo jot ndigal ci suñu kilifa mooy madame le ministre du commerce et des petites et euh, moyennes euh, pour ñu ñëw xool li nga xam ne moom moo fi nekk ci mbirum approvisionnement marché Touba. loolu nag ndigal boobu mu ngi sokkee ko ci réunion bi nga xam ne moom lañuy def altine bi passé xam ne dañoo woo waa commerçant yi nekk Touba ñu ñëw à Dakar ak yeneen ñi nga xam ne ñooy commerçant yi importé ak ñuy euh, defar produit ci biir Sénégal ku nekk wax li nga xam ne moom mooy sa problème. ak li nga xam ne moom la ñu yaakaar ni loolu la ñu war a def pour que mu dox ci mbir loolu nag bu mu paree la soxna si madame la ministre joxe ndigal léegi direction du commerce intérieur ak service régional di commerce de Diourbel ak suba bu nekk dañoo war a def lu ñuy wax relevé de stock mais aussi dañoo war a xool tamit lu nga xam ne moom mooy besoin commerçant yi nga xam ne ñoo nekk Touba pour que bu fekkente ni am nañu ay commande te commandes yi xam nañu fu mu nekk ñu ko xam kooku ñu commandé lu mu nan la ci taxawee. moo tax léegi service régional chaque matin day def relevé de stock xam commerçant Touba bi lu mu soxla ci ceeb si diwlin ak ci suukar mu wax ko directeur am directeur bi waxtaan ak ki nga xam ne moom moo mooy fournisseur ba. fournisseur bi nag moom tamit mu xam ni dafa war a toppatoo loolu te bu ñu defee système boobu bu ñu ko waxtaanee altine ba ba léegi ñun dem ñëw nañ tey pour xool ndax mu ngi dox te ci wax ci kaddu commerçant yi nga xam ne moom ñoom la ñu seet. gis nañu ni système bi mu ngi dox te ñoom ñi xam gis wane nañu ni que balaa réunion bi am na produit yu bëri seen commande yoo xam ne ñu ngi tàggoon Dakar ñëwul waaye bi ñu defee réunion bi ba léegi yàlla def na ni seen commande yu bëri ñëw na muy si suukar bi muy si diwlin bi muy si ceeb bi donc loolu vraiment loolu lañu ñu mënoon ñëwoon pour xool saytu ko si tour madame le ministre ndax mu ngi dox wala doxul jàpp moom pénurie moom incha allah du am li mu nekkoon tey nguur gi am na lu mu ci def ci ay saafara saafara yi mooy nan mooy jël nañ benn arrêté bu bees pour fixer njëg yooyu. bu ñu ko defee dañoo ne région bu nekk gouverneur bi na jël moom tamit njëg yi nga xam ne mooy njëgu région am te Diourbel def nañu seen conseil régional de la consommation ba arrêté nañ seen njëg njëg yooyu léegi service régional ak service départemental yi ñoom ñoo ko war a saytu di ko faire respecter ci kaw loolu. ñun tamit tooguñu ndaxte dañ leen renforcer ci liggéey jox leen ay jumtukaay ay oto ak ay yeneen élément pour ñu gën a taxaw ci loolu. def naa ni directeur de commerce intérieur mu ngi fi taxaw lu mu ci déplacé ci ay élément def naa war na mut ay 15 agents en plus de cela dañoo yaakaar ni njëg bi boo gisee nguur gi def ko c'est pour que ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo yi ñu mun ko jot kon nag waaye jëfandikoo yi bu nekk yow tamit nga xam ne njëg yi yow lañ ko defal boo gisee ni loo xam ne jaaduwul ci njëg bi da nga war a saisir service bi nga xam ne moom mooy service commerce bu nekk sa gox pour que mu ñëw mu mu taxaw ci mbir moom. ndaxte nguur gi dafa am lu bëri lu mu bàyyi ci ay taxes ci ay droits de douane pour que njëg mi mun a nekk fi fi mu nekk nii. donc ku nekk da nga xam ne yow yaa sa contrôleur bopp service du commerce nag dina ñëw jàppale la ci la kaw loolu.